coowal rabu àll yooyu ñu naan Oryx ñi naan ko kéwél euh, du Abdou Karim Sall rek moo ci tax ndax rajo Futur Média ci gëstoom jàpp nañ ni Aly Ngouille Ndiaye itam euh, tax na ca ndax am na ñetti kéwél yu ñu ne moom jël na ko yóbbu ko ca toolu boppam loolu nag tax na ba président bu conseil départemental bu Ranérou ne ak ku mën a jël ak ku mënta jël nañu fexe ba delloo leen seen i mala euh, lool itam tax na ba askan wa nga xam ne ñoo dëkk foofa ca Ranérou fa yéene ci amal ab doxub ñaxtu altine lañ ko jàpp Mouhamed Ali Mouba buñ sukkandiku ci président conseil départemental Ranérou Abdou Karim Sall nekk ministre de l'environnement du moom kese moo bénéficier ci kéwél yi yi ñu jël ci réserve bi nekk Ranérou mooy que nee ñi euh, fukk ak ñaar lañ jël donc euh, ministre Abdou Karim Sall euh, six la ci jël am na ferme bu nekk ci mbuur beneen ferme ñoo ñu yóbbu na ñett am na beneen turu ministre bu ñuy wax aussi jël na ci ñett donc nag loolu mooy information yi ñu mujj jot quand bi ñuy transféré kon kéwél yooyu am na ñoo xamante ni dañoo de ñeneen ñi gaañu Aliou Dembourou Sow jàpp ni li waxal li nu mel jàppin bi moo baaxul. waaw xam nga comme amuñu matériel bi mo war mooy maanaam euh, ay euh, bal yi nga xam ne day am NST yi nga xam ne boo ko tiiree gaz mooy euh, dem ci yaramu rab bi nga mu mun a tëdd nga tënk yóbbu fitna du ci am yooyu yëpp amuñu amul woon donc comme loolu amuñu ko woon nag dañuy utiliser ay moto jakarta ay buum ay kii donc yooyu yëpp fitna la te rab la yoo xam ne dañuy noble tellement que soo leen buntu xataale sax ñoom ci seen bopp dañuy xaru ku leen xam donc nag xaw ma nag ku leen xamul mais ku leen xam boo leen sonale dañuy xaru. buñ sukkandikoo ci Abdou Karim Sall nekk kon ministre de l'environnement déplacement kéwél yooyu dañoo bëgg kon protéger espèce bi ngir mu bañ a nax saay conseil départemental Ranérou jàpp ni loolu taxawul moo tax ñu ngi exiger ñu delloo kéwél yooyu la. donc euh, du benn nit moo ko moom du Ranérou moo ko moom donc mais dafa nekk ñi dañ ko dañ ko rek mais comme ñëpp ko bokk nañ ko delloo rek. waa Ranérou nag fu mu toll nii ñu ngi ay concerté wu xool naka la ñuy marché def marche ci alteneen ji naka noonu itam ñu ngi ubbi pétition ngir ñaawlu lu Abdou Karim ak yeneen ministre jot a def.